gis nga moo tax tarbiya jafe parce que yooyu ma la tudd bu ci désordre amee rek dafa feeñ ci comportement nit ki service bi la yónnee ruux ak service bi la yónnee fitra ak service bi la yónnee nafs ak service bi la yónnee atifa ak service bi la yónnee mantiq bu ñu surveiller wul affaire boobu rek àdduna tukki te daf ci am ñoo xam ni bu ñu jaxasoo rek gaañ nit ki nafs bu jaxasoo ak atifa rek gaañ nit ki waaw moo tax foofu négligence bu fa ruux def rek àdduna tukki motax toujours ruh ni lay def ak fitar pour di surveiller nafs digante ak atif lu ko may bu ñuy rëcc rek dañuy am influence ci mantiq bu ko defee nit ki lu ko neex mu wax lu ko neex mu wax surveillance permanente lay doon pour ñoom bu fekkee dañoo am affaire ak yonent la wax wala ñoo am affaire xutb bu nga xam mission bu universelle la waaye bu dee nii rek pour naan ataaya Ils s'en ma wax mm-hmm. بس كولابوراسيون نفس عاطفة خطر له خطر له على العالم على كوخ نخ نفس دفا باري بخ تعاطفة يدفا من جوتلي لولو موتخ شيخ بو مسان نيو تي يو ديو تربية فوك يو نيار تي لي جك آه. دانا فخي بو إيزولي سعاطفه dootul jote mukk ak sa nafs am na nu mu koy defee ndegam nun ñuy ta ndongo daaraam ñoo ko man waxuma la moom waaw bu ko defee gis nga bokk na ci li ñuy wax xubbul baqa ak xubbul xuluut collaboration boobu koy def collaboration nafs ak xatifa moi t'en toujours تعاطف ليجك fexe ba immobiliser ko mu xam fa mu war a yem lu tax xubbul baqaa am nit ki fitam génn toogatul wóolootul yàlla ndax ni bu dee ba ñu suul ko dafay niil kon nag njabootam la am topp njaboot ga fu ne mu dugg fa wut galan fii wut téere fii wut saafara fii xubbul baqaa wa xubbul xulóot waaw waaw man kay su ma dee bu ma dee ñu fàtte ma kon nag ñi ma am laay samp koy samp koy samp nga def ca lu nekk mu jaral la ko waaw mu wóor la ni wóoluwuloo yàlla ci sa njaboot mu wóor la ni wóoluwuloo yàlla ci sa njaboot bu ko defee mu jur mu jur xubbul baqaa wala mu jur xubbul xulóot waaw waaw kenn ku ne di toj bopp moroom ma ni ndax sama doom a fi war a toog moo war a jiite jàkk ji sama dooma war a moom tool bi sama doom yu kenn xamul yu kenn xam te ba yàlla bind tàgguwul kenn kenn ku ne la mu ko may waxu ko kenn te itam ñàkk joma fi nekk wante ku jël sa ndey sangu ko ba mu set nga gas ba mu xóot suul ko boo waxee leneen rek doo loolu mooy li ci nekk ak loo mën a dégg nit ñi dañuy tappale rekk waaye de ñëpp a ko ragal ñépp tappale fi nekk nag kurus fii kàcc-kàcc dara du ci dëkk ñépp a ko ragal waaw ki nga gën a bëgg jabar la yaay la xarit la mbokk la nga sangu ko ba mu set amuloo ci beneen pexe lu dul gas ba mu xot nga suul ko loo defatee tappale la waaye tiit nga maa la ko wax jaaxaan baaxul jaaxaan baaxul su ko defee lool rek la yàlla nag moo invité ni nañu ñëw wuy ko mu ànd ak ñun ñu découvrir yi mu bëgg ñu yéeme ko ko te te yey na yey na nag yey na comme dafa am fierté ci bind nit yey na nit xamal ko lu mu war a xam il faut que nit nit ànd ak yàlla parce que julli ak woor dafay barkeel li ngay def wante li nga war a def boo ca deful dara julli gee gi lekk la dafay lekk parce que doo fu mu teg moo tax yoon ci yàlla Isaa daan wax ni defalal teraanga ku tayalul defalal teraanga ku tayalul nee na dinga ca fayu ba sant sa borom ku tayalul boo ko dee baaxee rek mu ngi lay baaxee moom it te yëguloo ko seetal loolu parce que it toog noonu rek defe ni foofu nga yam doo def dara ah loolu doxul doxul de mu mel na kon nag bu nu yeboo rek bàyyi ci xel affaire bi taxul mu simple noonu il faut que ñu bàyyi xel ci quran il faut que ñu bàyyi xel ci furqaan mu gën a diis nag mu gën a diis waaye àtte nañu tafakkuru saa xayru min ibadati sana waaw nee ñu boo ñemee boor bi ci des te dugg ci te dugg ci daa dem ba benn waxtu boo xalaat moo ëppal valeur waa asamaan fukki weer ak ñaar yoo jaamu yàlla parce que jaamu yàlla gu teguwul ci xalaat benn njariñ la boo ko amul benn njariñ moo tax jot naa ci benn not ca gàmmu daaw ga te wax ne dëgg dafa jaaxle te jaaxalul boppam ñu ko gën a pànk ko jaaxal ndax léeg-léeg nga bañ a jaaxale te ku la gën a bànk pànk jaaxal yàlla dogal mu bind ma ni ma daal danga wax ni dafa am ñu doon ñaan loo sa turandoo pour des ci siraatul mustaqim وهي متنت لأن لأن الاستقامة في هذا الوقت غير ممكن ونك دفع من يتدوغ الأيف ونوال ليلين قديقو كواخر انك خمني تلو اللي لاتي وانت دو فك نكو دون نيان لو شيخ نيو روان كي سين جامانو موخ لكو نكو دون نيان لو شيخ نيو روان كي سين جامانو waaye bu leen cheikh waxoon ni firil leen ma siraatul mustaqim duñ ko firi mukk duñ ko ñeme parce que dañuy xam ni seen fahma lay nattu fa faham naa suleyman ah ah fa faham naa suleyman parce que fahma culture la fahma culture la moom la moom la euh, waa euh, tasawuf bi tuddee culture de l'entendement kenn ku ci nekk ci yonent yi li la yàlla tànq ci dégg waxu ko sa morom ndax bañ ñu ñu wujjee waaye daf leen di tànk te dañuy ëppalante ci tànk bi waaye du leen won li ñu ëppalante ndax bëgg respect mutuel bi war seen diggante nekk ci looloo tax muy déggloo Suleymaan lu baayam dul dégg Daawud pour wax la ni ki la ëpp dégg soo yeboo rek déglu ko boo ko naru la déglu nag may ko jàmm waaw moo tax ba ñu waxee cheikh ni ko na leen ñaanal ñoom ñu des ci siraatul mustaqim te sidna Aliyu discours am bu mujj mu wax ni lu jamono gën a dem jaamu yàlla di gëna a di jaamu yàlla gu sell di ka ca ne na muy ñaanit siraatul mustaqim na muy ñaanit siraatul mustaqim ñoom dañu ñaanlu te li ñu ñaan du seen priorité cheikh mi xam seen priorité ñaanal leen xabul bu sa jaamu sell de yàlla nangu ko xanaa loolu moo tane moo tax mun leen ñaan leen xabul dafa xam seen priorité te ñoom xamuñu seen priorité loolu rek mooy li ci nekk il faut dire la vérité ki la gën a xam sa priorité boo ko ñaanloo sa priorité la lay ñaanal maa la ko wax waaye la nga ko wax du la ko ñaanal mukk caaxaan baaxul xam nga Cheikh Cheikh du fa mukk moo tax fa am naa Suleymaan ba mu ko déggee mu ko déggee lijjanti na ko ba mu leer ko looloo tax mu ñaan yonent bi pour am chance xam fa ñuy tànqoo dégg dégg dañ koy tànqu comme ni ñuy tànqoo jiwu waxuñu ni dañ koy tànq tànq tànk ndox lañ koy def tànk ma tànk ci ndox mi ne dégg dañ koy tànku dañ koy tànku ni ñuy tànkoo jiw tànk ma jiw ma dem ji waaw def naa ko ba tay waaw def naa ko ba tey ndax baykat laa nag tabarkal yàlla xam na ko dangay tànku jiw waaye dégg danga koy tànku moo tax ñu dimbale ko ci ba mu xam centre ba ñuy tànqoo dégg moom Cheikh looloo tax mu ñaan ñu dugalal ko ko ci jawaratul kamal ah, markazul fuhumi wal maani loolu mooy li ci nekk mooy yow kay booy wut lu jafe ñu may la lu yomb te yem ak moom looy waxati looy waxati dama euh, dama nekk Paris boobu j'étais un petit jeune homme <coughs> may passé sama permis de conduire yàlla c'est officier de police bi ma booleel <coughs> gis ni juum naa ci ñaari point waaye ma ni ma je vous en fais cadeau je xam ni loolu mooy waaw yàlla xam ko yàlla xam na ko ni fait cadeau permis de conduire jox ma mais il faut continuer de ma ne ko ok seetal loolu mu mel Cheikh naka jëkk noonu lay moom dafay fekk li xew yi li te nga nekk ca mu won la ne am na lu ko gën waaw parce que ku ne xam na ni jamono lu mu gën a dem jaamu yàlla di gën a sellati loolu ñëpp xam na ko li ci Maodo wax rek ci neamatu afil jaani doy na sëkk li ci Cheikh waxit dëgg dëgg dëgg ci testament spirituel am doy na sëkk li ci Cheikh Al Hadj Omar wax ci téeréem boobu nga xam ni tabaarkalla la muy maqasid doy na sëkk mu mel ni kon li ci mat a bàyyi xel mooy seet fooy jaar aada ba du lekk sa diine ba mu jeex takk te loolu la la cay dimbale mooy yëg gooy yëg ni tubaab yi seen côté sakk na te matérialisme dégradant moo ko sakk nga yëg ni sa maam yi une profondeur sakk na te archaïsme bu débordant moo ko sakk waaw ah su borom baa ngi taxaw di la nekk waaw yonent baa ngi taxaw di la yow xam un yonent bi nag dama dama dem Makka am lu buur ba wax ak man gannaaw ga mu ni ma bii yoon daal bala ngaa dellu nga dem Taayif nga dem Taayif waaw moo ko waxee rekk xaw naa sàcc yëg tuuti rekk lu tax mu wax ko mu ni ma nanga jaar nanga jaar hëdda sa mbokk ma euh, burhan say fi diin yaay ji dafa faatu te mu saalit ci bu metti su ko defee nga waxtaan ak moom ci guddi gi muy bésu alxemes yàlla ca ma dem fanaan ca moom waxtaan ak moom julli suba ba noppi continuer jëm taayif fekk Mouhamad Surur Sabbaan ma nga fa di ma xaar buur baa ko fa yabal bi ma ñëwee muy suba àjjuma ñu commencé waxtaan naka la jot rekk fekk roi baa ngi agsi ndeke mënul muñ waxtaan te ñeenti nit rekk lañu waaye bëgg na fekke waxtaan mais li mu doon bëgg a wone moo doon moo doon boole diine yépp ñu nekk benn te dafa mel ni xalaat ba ci leetar yu ma bindoon la ko jëlee benn conseiller bu ko yéene jàmm ni ma wax ko ni ko bu mu ko précipité mukk ni ma ñamewuma ko ko wax ndax moo ko waxoon ci suba balaa ngoon àdduna tukki waaye wax ko ni ko bu mu ko précipité mukk ndax ci ni ma ko gisee ñoom seen projet yépp ci prestige lay dellu te prestige kese kese amul njëriñ lu mat a bàyyi xel la waaw ndax baatu prestige dama ko dégg ñetti yoon te bu ci ne ci continent la jóge lu bokkul ak moroom xam na lu ba paatan tabarkala la te ñoom ñëw na bi fii te ñoom ñoo ma ko bokk xam nga moom sama diggante ak maître moom daaniki rek diggante nit ak doomu bàjjanam la wala diggante nit ak doomu tàntam la waxtu wu ne nu ngi ànd tabarkalla mooy sama avocat moom may lijjantil sama yëpp nag ba nu nekkee ca alkande ja sax moom la woon waa wax dëgg yàlla waaw xaq la laa <laughs> bu ñu nekkee ci alkande ji wallaay ndeysaan ñu sonn lool nekk ci alkande ji maa ngi dossier boo xam ni su ma ko publié woon àdduna tukki wallaay ndeysaan loolu kenn mësu koo gis waaye la nii ngeen teewe sax la rafet na parce que fii itam seen mbokk rek a fi nekk te itam président moo leen yebal président dama ma doon wax ni ma man ni ngay dundee jaaxal la ma wallaay ci sa kanam ma ni koy bii laa mën dunde bu jëkk daaw ma dunde nii waaye itam nag it tollu ca def ko aayu waaye passé ko bàyyi ko it aayu ah waaye toll ca defuloo ko bàyyi ba mu passé nga yëngi-yëngi ma ni ko baaxul ma ko ndax dangay sonal sa bopp sonal nit ñi waaw ah, te ma ni ko loolu baaxul ma ko teyit koo xamul fa mu jaar boo bëggee wujjeeg moom di nga waaw ko wax moo tax tabarkalla waxtu wu nekk rek dama koy déranger di ko jugloo mu di ko nangu ndax noo bokk dex ga wax dëgg yàlla bu mel ni kon nag bàyyi leen ngeen daw ndax dafa am feneen fu ñu war a demati tabarkalla la yal na yàlla barkeel yàlla sàmm leen sàmm nu sàmm njaboot yëpp tabarkalla loolu baax na di loolu dara ne ko ci li ci des moom tabarkalla ah dinañ leen ci may ay film du dëgg mu ngoo boobu moo baax la kon nag ngeen daw seeti sunu bokk yi dem ngeen lu rafet tabarkalla loolu baax na di barakallahu fiik yal na yàlla fay leen yiw prestige te bokkuñu continent kii Arabie Saoudite la conseiller roi bi wax ma ni ma wax ko ni ko bu mu précipité projet bi mukk ndax kon dafay mel ni prestige rek la ciy but ma jàpp ci xam-xam bu day na ñey xam ni prestige lu mu dugg yàqu ko amul sax te parce que dafa amul njëriñ amul njëriñ mukk ndax nee ñu bukki nee ñu bukki benn yëkk dafa romb benn yëkk dafa romb pénc ma mag ñëpp fett ni askay bukki mer ni ndeke waa pénc mi dañ ma añaane ma suñu ma fett mukk daldi mer rekk dem fekk lawbe ba ñu ko yettal ma bijjin lawbe ba yettal ko béjjén ni ko waaw ah, loo koy doyee mu ni ko ci sama bopp laa koy def mu ni ko ah, dana tiis de te mënuma ko man dangay seet keneen mu defal la ko mu ni ko ku ko fi war a man mu ni ko gis nga mbaar mële benn tëgg nga fa mën na ko danga koy faye rek mu dem négocier négocier négocier ba ñu d'accord ak moom mu ni ko dana metti nag mu ni ko baax na moom kay naa am rekk bu mel ni bu nag yàllaat si mu dem ñu defaral ko gasa gasa gas ba dugal ko mu waaxu romb pénc ma mag ñépp daanu ci suuf di ko reetaan mu ni gis nga li ma leen waxoon dañu añaan ndeysaan naka la dem ba këram jabar ji jëppi ko doom yi jëppi ko di ko xool bu mujj rekk soxna si ni ko waaw doo añ mu ni ko tegal ma fii ba ma nelaw ba noppi mu ni ko déet balaa kenn nelaw dangay añ ba noppi di mu ni ko waa tegal ma foofu rekk ndeke booba ma nga ci yoon àllaaxira naka la tëdd tuuti ni jabar ji waaw sa bopp mettiwul mu ne kaa luy metti sama ma luy metti sama bopp mu ne ah, itam sama ni nelaw la jógee wante prestige dama ni ñetti continent ñoo ko conseiller bi wax <laughs> ak lu ma dégg sama benn wëllëre boo xam ne wëllëre sengoor la ku baax la xale yi xam nañu ko daf daan ñëw di nu seet si waxtu wu nekk li mag ñi daan def daf koy def buñ ko masaan toggal añ bu lekkee ba noppi foog mu dem ci buntu waañ wa wax leen ni vous m'avez nourri que Dieu vous li mag ñi daan wax jaraw lakk xaw ma waaw moom daf ko daan def ndax doomu noble la moo tax ci noblesse française bi la bokk waaye Senghor doon diisoog moom ci affaire barrage yi taxul mu sawar ca nag ma ko waaw lu tax sawaroo ci mu ni ma parce que projet prestige baaxul ci pays sous mu ni ma gis nga barrage yi dana noppi te dana laajaat liñ ci dépensé ñetti yoon paysans yi su koy mën a jariñoo te boobu lañ dul am na li li ñu daj soog a am lii buñ ko bëggee dajaat dootuñu ko mën du leen fi fekk sax te kon paysan yi duñ ko jariñoo ma boole ñaari prestige yooyu mu wax prestige bu ñetteel bi ci benn diplomate américain laa ko dégg mu ne ma ñett daf ma jaaxal ci senegal bu jëkk bi moo di nitu diine yi fi nekk comportement bi ñu am moo comportement sénateur yi ci États-Unis benn la mu ni ma ndax sénateur yi liggéeyatuñu pour les États-Unis dañuy liggéey rek pour seen prestige mu ni ma loolu laa gis fii ci nitu diine yi ni ma baal ma nag ndax doomu daara nga mu ni bi ci des ci Sénégal ma gis ci itam ni syndicaliste yi fexe nañu ba politiciens yi yilif leen mu kon nag dootuñu am ku leen protéger travailleurs yi dootuñu am ku leen protéger mu bi ko ñetteel mooy boroom kër yi ci kaw gi ñu ëpp autorité boroom kër yi ci teeru yi ma ne ko parce que ñoo leen jur ma ne ko parce que ñoo leen jur ñi ci teeru bi ñëpp ñi ci kaw gee leen jur ça il faut le ma xam ni prestige prestige prestige te benn baaxu ci loolu kenn mësu ko gis mu mel na lu mat a bàyyi xel lépp lu dellu ci prestige jaru ko parce que amatul dangay nax sa bopp rek mais amatul waaw amatul mu mel na ngay dajee ku jaaxle yàlla dogal ma dem ci benn boutique waaw ah. li may wax nii mag ñi dañ ko seede waaye sama set yu ndaw yi ñoo ko moom ndax bu jëkk dangay jóg di xaleel ñu maye la c'est-à-dire nga nekk taalibe boo ñu yóbbu la ca daara ja xam nga taalibe mi ngi jóge ci baatu taalib taalib mooy kuy sàkku wante baat bi dafa xaw xaw doy waar tuuti waaye taalib mooy kuy sàkku ñun ñu yàq ko ni taalibe loo ci man mu mel na Maodo léeg-léeg mu cité Malik ibnu Dinaar ku ko fonk la mas na xëy moom Malik ibnu Dinaar soxnaam ni ku wàjjile góor gi jógal sangu solu dem ci jumaa ja tey la iid ma ko waaye man tey du sama iid parce que ci suba waxloo nga ma bêtise dama bés bu ma waxee bêtise bés ba du sama bésu iid waaw kooku xam nga philosophie rabiat al adawiya la amee waaw waaye moom moo tuddee taalib mustarshid ne moo gën a jekk waaw moo tax ñu tudde ko daayiratul mustarshidin waaw tabarkàlla waaw moom nag ku yéeme la moom Malick ibnu Dinar Maodo daf ko fonk lool tudd na ko ci ko ci waaraateem yu bare daf koy tudd mu mel ni kon dañu tollu fu nga xam ni il faut que ñuy dellu ci yu mel noonu ndax gëmadi yàlla ba mu jeex baaxul te itam réew bu ñëpp gëlëmee àdduna tukki jaaduwul waaw réew mu ñëpp gëlëm jaaduwul <coughs> aada koy def aada moo koy def waaye cheikh mësuma gis mukk lu mu santaane tëddu yiwu nit ña dañ ca nekk côté révolution yàlla ko defal waaw te du ko teg fu ñaaw nag parce que du rayaate du xasaate waaye rekk fa gën la lay teg waaw su ko defee suñu ko amee comme kilifa te Maodo itam mel ni mu mel sëriñ Babacar mel ni mu mel defe naa du ñàkk ay jamono yenn nag ñu mën a sukkandiku ci ñoom pour di ko soppi waaw lu ci jaaduwul rekk ñu soppi ko kooku farata piir la te mag ñi ku leen gën nag amul te seen xam-xam moo gën yi ci bibliothèque yi ma wax la ko dama toog Abdou Aziz ñëw seet si ma ni ma sa papa bii ci Njaasaan Sëriñ Sidi lemin Kunta nee na boo weranteeg sa papa ca yey ko danga koy gisaat fekk nu werante woon ca kaw ma moom dama koy def ak ñoom mag ñépp dama koy def ak ñoom ndax dama yëg ci ñoom lëf loo xam ni magam a ko wax te cer Cerno Muntaga Taaha ca Luga moo ko wax ni ma koo fi gis rek wéttal lay wut waaye wutul taalib yi wéttal la kenn amatu wéttal la kenn amatu yow moo taxoon sa maam gàddu sàkkoosam wuti Madina ne ñim fi am kay kenn xamul nañu toll waaye wéttal la ci amul ñu ngi fi mais amu ci wéttal mu ni ma moonu dal mu ni itam nuy wër wértal di ko wër ba yem ci Maodo mu mat sëkk wértal waaw te seetal loolu yombul yombul nga xam nga xàmme ni wértal nga bëgg waaye dana tax nag njaboot am jomu mën a wértali mag waaw man dama ko xam te dama ko daan jëfandikoo amul ci mag ñi ku ma xamul sa mbir amul waaw ndax dama ko daan toppatoo daf ma yëtteeloon mu ni ma sam maam sa eh, Sidi eh, sa papa Sidi Lamine Kunta bu Njaasaan nee na soo weranteeg sa papa te yey ko danga koy gisaat ma ni ko ah, loolu de yàlla ko dogal maa ngi di dem ndakaaru ëllëg ci aseer ji ndax dama fa am gan te dama war a dem añ ak moom ñaanal ma ko mu recevoir ma samedi ci suba nu waxtaan bu nu waxtaanee ba noppi ma ma ma jàll soog a dem Ndakaaru Abdou Aziz wax ko ko mu ni ko nekkoon na ñëw ëllëg ci diggante dix heures et demi onze heures musuma gis mu góor gu mel noonu c'est un aristocrate wallaay dafa civilisé un aristocrate du ciel wallaay ba ma demee ñu nuyoo ba noppi xam nga su ne man dama ko yey xam nga pédagogiquement dañ koy def ñoom pour bëgg seen njaboot ñeme ëppi nde ñoom kenn du leen yey waaw waaye li ñu gën a bañ ngay seen njaboot am opinion ba noppi keneen di la ci génne dañu xam ni doo kenn benn nit bu la gënul ndey gënul a baay gënul maam ci liggéey laa wax di nde judd bi ñépp ko ko Adama Ka wante warul génne ci sa opinion fan la ko teg looloo tax mu di ma encouragé ci ñu bañ di ma génne ci sama opinion loolu rek la ci jublu cax la cax cax la moo tax mu ni ko waxat Cheikh ni ko soo weranteeg sa papa ba yeey ko danga koy gisaat waay rekk ca Kawlax la woon nu werante fa baag moom mu ni ma nan teg ma ne ko ay ca wallaay ndeysaan mosuma gis mu ku baax ni góor googu la wallaay ndeysaan soxna mariam sidi mi jigéenam waxtu wu ne daf ma daan yónne umar samb mi lu ko soo demee neel cheikh na jàng suratu sangam waaw na ko saxoo ñetti weer bu mu ko bàyyi moom ku bari xam la yàlla xam na ma dem nag ñu toog di waxtaan mu ni ma danga am gan Dakar ma ni ko waaw mu ni ma bëgg dem añeeg moom ma ni ko waaw mu ni ma doo dem fenn fii ngay yendu ma wax la ko léegi doo dem fenn fii ngay yendu te dama lay toggal añ te añ bu neex laa lay toggal te loolu mësuma ko defal nit man ku ñëw li ma lekk ci nga lekk man xam nga lu ma lekk gis nga sànqal yi li moom lañ ma defal laax laax bi duma ci def soow parce que dafa diis bu ko defee ma def ci daqaar te daqaar bi dama ko njar ba mu woyof te duma ci def sukkar bu ma ci deful daqaar ma def ci buy te buy bi dama ko njar waaw duma ci def sukkar ma ne ko waaw te mu ni ma yow nag dama lay defaral añ bu nga xam ne xam nga lu ma laa defaral añ ma ne ko mu ni ma ganaar te dama cee def yépp ah dama cee def salade yile ak mayonnaise yile yëpp laa cee def ma ne ko waaye bàyyi ma ma lekk ci li ngay lekk waa ji mu ne ma mais Cheikh teraanga kenn du ko delloo ma xam ne wax na tëgg ma ne ko gis nga lii ngaa lekk ni Maodo toll woon na foo xam ne loolu la daan lekk ma ne ko yéen ko bokk wallaay ndeysaan keroog mu kontaan lool bu mu ëpp mu ni ma waaw gan gi nga am fan la jóge ma ni ko Maroc la jóge mu ne ah marocain la ma ni ko déedéet ma ni ko tubaab la ma ni ko benn kilifa bu ñu wax Maigre Dubreuil moo ko fi yebal ndax xam nga naka jekk Maigre xamoon na ni français yi dinañu dal ci kaw sultan bi def na lu nekk pour loolu bañaa mais kenn mësul gis lu mel noonu kenn xamul tubaab ni mu bare xam-xam ni mu bare alal ni mu bare alal te ci tooñ rek la dëkk nangu wuñu dëkk ak sultaan bi ba dëqali ko moom te humilier wuñu ko ban intérêt lañ ci am mi ngi mel ni xaaja Omar ak ak fedeex bi doo xam loolu lu dul ni rek seen profondeur dafa sakk foofu rek nga koy xame yàlla te ñu waxtaan fa laa yendu pour wax la mag ñi la sëriñ Abdoulaye du waxoon non sëriñ Cheikh Kandji dafa ñëw seet si ma foofa dama dem seeti sëriñ Abdoulaye sëriñ Cheikh Kandji ñëw fa fekk ma fa di ko nettali li ma bokk ak moom ak di ko wax li ma sëriñ Babacar booleeg moom ni ko keroog góor gi ma ñëng mbàyyi la ma booleel ni ma demal ci cheikh li ma ko war a wax yépp wax naa ko ko soo demee li nga bëgg yépp na la ko bindal mu di ko nettali nag sëriñ Abdou ba mu demee sëriñ Abdou Lahad ni ma gis nga yu mel nii denc ko ci coffre moo gën jël weccit di ko denc ci koofur waaye wax na dëgg mu ni ma tax xale yi dañ koy soxla mu ni ma xale yi dañ koy soxla mu moo gën denc yu mel nii moo gën denc weccit weccit ci koofur waaw wax na dëgg parce que jariñoo bi ñu koy mën a jariñoo duñ ko mën a jariñoo leneen وسيتي ديغنتي شال حاج عمر فداب سيت ديغنتي بورو ماروك بي سلطان بي شيت لولو كين مسكو غيس تي من دم نافا دم نافا اي يون يالا خم نكو وانت رك مارشال جوان موني موم دبي موك سلطان بي تي اوميلي لولو بليزيرم لك barele ba noppi cest tooñ seetal amdol am doole ba C'est un France dox ko ci feu vert bi ñuy laata yëg ne àdduna na fekk nañu jox ko ci feu vert cest noppi seetal loolu yi ñoo ma yu ndaw yi ñoo ba France joxe ndigal ni fu sultaan bi ne nañ ko jëli keroog bañ koy génne Maroc ci avion militaire boo xam ni banque sax nekkul ci biir lañ ko dugal moo soxnaam mag doomam yépp dem sànni ji leen Madagascar lu tax parce que rek un maréchal juin bëgg na lool te France xamul lu xew ba ñu demee ba yëg ni lañu fa rey ci français kenn xamul nu mu toll lu ñu sugg yónnee ni nañu indi sultaan bi ñu delloo si ko def ko roi loolu kenn mësu ko gis yow kay boo yónnee ñu juba di àll da nga leen di surveiller bu ñu la proposé dara nga seet ndax yàq ngi ci walla yàqane bu ci ba ñoom duñ ko def moo tax ma ni la seen seen profondeur dafa sakk dafa sakk de maa la ko wax moo tax borom bi yóbbante yonent bi ci ñoom moo tax borom bi yóbbante yonent bi ci ñoom ndax yàlla dogal na ci yar bu ñu jële ci seen sëñ kër Si la tabarkalla la li ma am ci wóllëre tubaab xaw ma na mu toll te ñoom ñépp li may tawat la ñuy tawat seetal te ñoom ñépp li may tawat la ñuy tawat dañuy jaaxle dangay waaru sax loolu kenn xamul lan la te moo dox diggante Faidherbe ba ak Cheikh Alhaji Omar Cheikh Alhaji Omar waxul deful dafa doon liggéey liggéeyam ñu sosal ko rekk pour bëgg dëgg ci yu kenn xamul ndax booba yëg nañ ni France fasul yéene toog Sénégal mu nga jëm Brésil France Brésil la jëmoon ndax fi dara amu fi gerte rekk a fi looloo tax ba mu ko yëgee te moom bu France demee Brésil mu yàqu yaxeet moo tax mu sos fi problème mu El Hadj Omar te El Hadj deful waxul waaye nag koo koo acculé mu taxaw koo acculé rek mu taxaw man maa la ko wax loolu mooy li nga xam ni mooy ci nekk yépp nag ma ni ko def am gan guñ fi yónnee daal ki ko yónnee ma ni ko ci kilifa yi la bokk Mégane Dubois lañ koy wax gis nga Mégane Dubois boobu moom la mujj rek ca affaire sultaan ba français yee ko ne ak na mu toll pour wax la rekk ni war nañu bàyyi xel suñu bopp boo dëkkee boroomi bakkan yoo xam ni seen bakkan rek li ñu gis danga leen di bàyyi xel te loolu ñi ma koy digal ñépp ay français lañ ndax samay wëllëre lañ sama wëllëre yu mag lañu sax yàlla xam na ko lu ne lañuy seq lu nekk la ñuy seq shahid mu mel ni kon nag yitte yitte moom su amul rekk àdduna tukki waaw yitte su su amul rekk àdduna tukki dangay taxaw tem bu fekkee da nga nekk puissance buy coloniser dangay fexe bay am bay am information yu wóor waaw sëg a dugg ci dara waaye bu dee buñ ñu la informé rekk nga jóg di fetal ca fajar boobu doxul boobu doxul waxtaan rek lor ji dafay bare lor ji dafay bare bu mel ni kon nag dafay war a am lu ñu war a bàyyi xel li ñu war a bàyyi xel la ci war a jiitu mooy li nu doon waxtaane ci wàllu kitaab bi yàlla wàcce te wàcce ko ci yonent bi yonent bi nun ñëpp muy sunu sang waaye itamit ci moom la noo tànqe waaw ci moom la noo tànqe mu nekk ci diggante borom bi ak ay ennemis mu nekk ci diggante borom bi ak ay ennemis ndax yàlla dafa am ennemi yu dul nit te daf leen dooleel ba noppi jël yenant bi samp ci seen kanam ni leen lu ngeen man ci def ko def leen may lu ma man ci protéger ko protéger ko moo tax yonent bi daj lu nekk su fekkee ni buuru Makka dafa wax ni naa dem Taïf rekk point boobu moo tax ndax Taïf fa la làbbe ba récupéré woon yonent bi loolu moo tax pour wax la yàlla ni muy tëralee kenn xamu ko léegi ñoom informé nañu yonent bi wan ko ni ko Madina mooy capitalam te yonent bi d'accordu ci mais te itam yonent bi dafa am ay noon te li ko yàlla yónnee tax mu am ko yàlla itam dafa am ay noon parce que dañ ko mere ndax yonent bi ah foog mu protéger ko loolu mënul ñàkk waaye ci biir loolu itam mbiram moom moom sunu borom danga koy delloo toujours ci nguur rekk waaw ndax nguuram moo toll noonu yàlla dogal bi mu ko ne màkka du nekk sa capital mu ni dafay boole suuf si ak asamaan moom yonent bi lu tax ñu wax ko lool moom màkka la xam màkka la bëgg màkka la sopp nangam nangam waaye yàlla def la ca gën mooy yonent bi ku ko def lu sew rekk la bañ yàlla jël xolu ñu ko bañ ñépp def ci lu sew fu mu romb ñu di ko reetaan fu mu romb ñu di ko rëkk-rëkkal fu mu romb ku ne tàpp sa borom bi gisal sawaay nee na ma nga jógee kaw asamaan ci ku bañ lu sew seetaan loolu mu seetaan ko parce que moo bañ li ko yàlla proposé mu bàyyi ko ñu sew ñi